Euh, wax nañu wax nañ ni bi nga xamante ni nag Moussa ak Xudar dem nañu ba war a tàggoo Xudar daf ko wax ni ko dénk ma dama bëgg nga dénk ma léegi maanaam Moussa dafa wax Xudar ni ko nag loo may dénk ma yóbbaale ko Xudar ni ko li ma lay mooy bul dugati mukk di dox ci dul itte mu ko waaw mu ko dénk naa la nga moytu coow lu bari ba mun ko denk na le nga baña re ci lu amul xorom ki mané wul bul ci mun ko mun ko denk na le yit bul ay balati moy kat yalla yi ci moy gañ moy yalla mun ko waaw ko na ngay seet sag mooy yàlla ay def nga diko joy mun ko waaw ni ko bul yexé ci defi tay ba ëllëg manam def ju mu def tay bul ni na ko bayyi ba ëllëg mukk loolu lay dénk boo ko lepp nga ci def